wala xawla wala quwwata illa billahi alcaliyi alcazim neena alxadiisu alarbacuuna ñeen fukkeelu xadiis buñ ne ñeen fukkeelu xadiis dana mel ni mooy xadiis bi mujj ci téere bi ndax al arbauna nawawiyatu lañ ko tuddee waaye en réalité fukki xadis la ak waaye comme ñeent fukk gën a gàtt ñu ne ñeent rek la ca tegee tuuti ay gaa mu mel ni du dara donte dara la alxadisu al arbauna ñeen fukkeelu xadis ci téere bu màgg bi di al arbauna annawawiya mm-hmm. ci téere bu ama am solo mm-hmm. te mata mokkal mm-hmm. na kuy soobu ci xam-xam mm. romb fi téere bu mel nii mm. ne ah man kay bu may mokkal damay dem ci téere yi gën a mag hmm. tëb dal ci buxaari hmm. waa mu tëb dal ci muslim hmm. waa mu tëb dal ci umdatul ahkaam baa buluugul maraam te te xadis yooyu boo ca tàmbalee am ca téeméer wala téeméer ak juróom fukk ki mokkal ñeent fukki xadis yi moo gën luñ mokkal ndax ñeent fukk xadis yi cosaan yi mm-hmm. njàngale lislaam yépp la dajale te mm-hmm. boo doon mokkal buxaari mm. nga mokkal buntu tahaara mm. mokkal buntu salaa mokkal téeméeri xadis fekk ba léegi yaa ngi ci benn buntu rek mm-hmm. moo tax mag ñi daan tàmbale ci tàmbali ba bu dee ci xam-xamu xadis mm. téere bi moom lañ daa njëkkee mm-hmm. ndax ki ko taalif dafa am tamakkun ba mu ëpp mm-hmm. ci xadis ak ci mm-hmm. xam-xam yi xool ci xadisu yonentu sallallahu alayhi xool sharia gis ne njàngale sharia yépp a ngi daje ci ñeen fukk yi ci mokkal ñeen fukk yi su duggee ci yeneen téere yi lépp dafay yomb mokkale arbauna nawawiya soog a dugg ci umdatul ahkaam ne daf la tënkal xadis ci ci ci wàllu fiq nag ak ahkaam naka noonu dem ci buloogul maraam nga soog a dem ci téere yu kawe mu ngi mel ni xam-xam mu ne rek woo mm-hmm. cay sóobu mm-hmm. seetal muxtasaraat ya mm-hmm. téere ya nga xam ne ñoom lañ tënk te ñu dajale cosaani xam-xam ya mm-hmm. te ñu sukkandiku ca ñoom nag mm-hmm. loolu ne téere bu ñu tënk rek sukkandiku nañ ca boo dee jàng te xam-xam bu mel ni naxu da ngay gis ne téere bi ciy gën a sukkandiku ci yi gën a gàtt mooy matnul aajur ruumiya ki ko fi romb ne dafa jànge alfiya dana mokkal bayt yu bari ci alfiya mm-hmm. te du dajal mm-hmm. li aaja ruum tënk ndax mm-hmm. aaja soo ko mokkalee cosaani naxwu yëpp boole nga leen su ko defee nag nga soog a tàllal aaja ruum yi da gis ne am na ñu ko def ay wëy soo mënee mokkal wëy yooyu mu gën a yombati waaye booy xool wëy yooyu it ne woy wuñ woy àjjuruma rek nga sukkandiku ci bañ cey gën a sukkandiku mm-hmm. mooy woy ba góor ga ubba mm-hmm. dégg nga woy mm-hmm. euh, daal di ci noose àjjurum nga xam ne boo demee fu mel ni Shinqiit ak dëkk yu bëri daanaka xale yi moom la ñuy njëkk a mokkal sax balaa ñu leen di firil matlul àjjurumi yi ba ca jógee dem ci mulhatul i'rab mm-hmm. ba ni nga yeggee ci alfiya mm-hmm. alfiya yi tamit bari nañu mm-hmm. ibnu malik bi muy bind alfiya nee na faiqatan alfiyat ibni muti alfiyat ibni muti moo fi njëkk alfiyat ibni malik suyuti yi ñëw ne téeram bi tamit alfi faiqatan alfiyat ibni malik keneen dana ñëw ne rayiqatan alfiyata suyuuti hmm. waaye bu ñu xoolee alfiye yëpp yi hmm. ci gën a am njëriñ te ñu sukkandiku ci hmm. mooy alfiyatu ibnu malik ba defee xam-xam toujours dangay seet xam-xam ba ngay jàng téere yee ca gën a sax biir téere yooyu gën a tënk bu xoolee xadiis téere yi ci gën a sax te gën tënk benn rawut ci jullit mhm. moo tax mu am xabool bi mu am mhm. mhm. yàlla ñu yàlla fayal imaam Nawawi waaw yàlla barkeel la ñeent fukki at ak ñeent rek la dundukat waaw waaye lim taalif moo dem fekk ko dem fekk ko doo dugg ci jàkk mbaa barab bu ñuy jàngee lislaam boo fekkul téere bi mbaa Riyaadu Saalihiin waaw sharh Sahih Muslim it noonu ak yeneen taalif mufida mm-hmm. mm-hmm. na yàlla barkeel ñu barkeel ko mm-hmm. nee na an ibni umara jëlee nañ ci sayduna abdullahi doomi sayduna umar radiyallahu anhuma na yàlla boole leen gërëm waaw sayduna abdullahi ibnu umar mm. bokk na ci ñi gënoon a fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ci côté bu ne nag mm-hmm. saxaaba yépp a fonk yonent mm-hmm. alayhimu sala alayhim waaye ku nekk nag da nga am sa miisa da am sa xusuusiya dañuy wax ne al xusuusiyatu la taqtadi al afdaliyata ana ku nekk am nga particularité duñ la xàmmee mm. Seydina Omar nag hmm. Seydina Abdullahi ibnu Omar nag hmm. toppam ak taram ci ni moo toppee njubal yonantu dañ hmm. ko xamee woon waaw moo tax góor ga ba muy wax imaam Malik na ko bindal téere ci njubal yonantu bi sallallahu alayhi ci xadiis ak sunna ne ko moytu taruk Abdullahi ibnu Omar ak yombalalu Abdullahi Abbas waaw ku bëggoon yonantu bi la sallallahu alayhi mm-hmm. ku bëggoon jubam la daan na dox ba ci sax bu mm-hmm. waaf ñu ne ko lu xew mm-hmm. ñu ne mu ne yonantu bés mos naa ànd ak moom fii fekk branche garab moo fi traversé woon mu waaf waafu yonantu googu la fàttaliku su fa jaaree moom it waaf baa mu dem dem dem ba benn barab rek mu taxaw commencé julli lu tax mu ne damaa mos a gis yonantu julli fi mm-hmm. waaw mm-hmm. waaye kuñ ne Seydina Omar a la jur waaw mm-hmm. ah, kooku yonantu yar la kéemaan nga mel nii qaala wax na moom Seydina Abdullahi ibnu Omar mu ne axada mos naa jàpp bés rasulullahi yonent yàlla muhammad mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallama mm-hmm. bi man ki bayya mm-hmm. ci sama ñaari mbagg waaw bés téye na sama ñaari mbagg lu ci jublu mu bàyyi xel ci lim ko bëgg a wax waaw nit bu ñëwee tàpp tàppal la mm. baa mu téye la gësëm la mm. dégg nga wi mm-hmm. rek wane na affection gi yonent bi am ci moom mm-hmm. miin gi ko yonent bi miin mm-hmm. fonk gi ko yonentu fonk sallallahu alayhi wa ak bëgg gi mu bëgg mu bàyyi xel ci lim ko war a wax fa mu ne ma kun nekkal fi duniyaa ci àdduna yow Abdoulaye Omar ka annaka mel ni ki yow garibun tuuranke nga hmm, hmm, hmm. aw aabiru sabilin wala aji jéggi yoon nga sa melo ci àdduna sa dundin ci àdduna na nekk dundinu ak tuuranke tuuranke bu wàcc ci dëkk xam nga ne du fa jàpp euh, dëkkuwaay mbaa saxuwaay ndax ab tumuranke la fa rek ay mm-hmm. na soxlaa ko fa indi bu soxla sa jeexee mu dem mm-hmm. Mm-hmm. waaw dëkk boo xam ne yow ab tumuranke nga fa rek soxlaa la fa indi bu soxla sa jeexee nga dem nga di fa tabaxi kër ak di fa jëndi business ak di fa defi tool te yow doo fa sax waaw ah, loolu kenn mënu ko dégg aw aabiru sabilin walla sax lu gën a tuuti loolu hmm? Hmm. aw aabiru sabilin hmm. wala sax lu gën a tuuti loolu te mooy lan aji jéggi yoon kuy transité xam nga kii tukki jëm Sénégal avion bi taxaw Casablanca pour ay waxtu rek yu mu war a embarquer beneen avion pour continuer Sénégal waxtu yu tuuti yooyu mu fay transité dara xaju ko dara xaju fa wa taabiru sabil moo gën a mën a dëdd te moo gën a mat dëddu fa muy romb sax ab tumuranke tumuranke sax mën naa wax ne naa fi toog ay fan wala naa fi toog ay weer ba li may sotti waaye kiy transité moom kooku dafa romb rek hmm, hmm. jéggi yoon hmm. ko dafa romb rek Mm-hmm. maanaam àdduna mm. lu fi nit yàgg-yàgg mm. bu ko comparé ak dundu mm. dafay mel ni dundam du dara nit lu mu fi yàgg-yàgg soo xoolee ba yàlla dalee bind ba bi muy faat lépp sa dund gi yow hmm. bu doon junnee at la waa hmm. muy téeméeri junnee at sax hmm. day mel ni la ci dundug àdduna te dundug àdduna gannaaw lu mu yàgg-yàgg fay jeex du dara waaw yaara mu ne fa kullu ma huwa aatin qaribun lépp lu luy dikk rek xagsi na lépp luy dikk rek xagsi na loo xam ne nag lu mu yàgg-yàgg fokk nga tàqalikook moom hmm. loo fi am hmm. benn nga bàyyi ko fi wala balaa nga fee bàyyi sax loolu bàyyi la fi hmm. loolu jarut jëng jëm ci jarut jëng jëm fa lum neex neex bés dana ñëw mu jeex su fekkoon ne àdduna yépp neex neex la sax neex neex buy jeex la jarut sonn waaw rawatina nag bi nga xamee ne àdduna hmm. tey dafay neex hmm. ba mu naqadi hmm. neex neex boo gis naqadee ko jiitu te naqadee topp ci moom yaaram ba mu ne laa tiba lil aychi ma daamat munaxasatan lazaatuhu biddikaari lmawti walharam laa tiba lil aychi ma daamat munarrasatan lazatuhu lazatuhu bi dikkaari mawti wala waaw dund àdduna mënta neex ndax ñaari nëx nëxa koo seq fàttaliku dee ak fàttaliku ne bés danaa ñëw ma màggat waaw li ma mën yëpp bés dina ñëw ci mën dara waaw li may lekk muy saf yëpp dana ñëw dara dootuma saf mhm, mhm. sama kàttan gi may doxee ak gi may yëngatoo ba mhm. dana ñëw lu ma def dañ ma ko defal bu fekkoon foofu rek lay yem mu doy naqari waaw dee nag moom hmm? dee nag moom waaw ku mel noonu yorantu ne kon daan ngay jéngee jëm ci li war mooy foofu nga nekk fa mel ni ab tumuraan tumuraanke mooy yaa ngi foo xam ne xamoo fa kenn mm-hmm. Mm-hmm. kenn xamut la fa mm-hmm. xam foofu kooku mënta neex foo nekk xamoo fa kenn kenn xamut la fa kooku doo kooku mënta neex waaw kon àdduna ku ko neexal yow la neex rek waaw ku ko neexal sa bopp ngay nax rek waaw uh-huh. wala kuy kuy transitif yow soxlawuloo la fa nga fa ngay romb mm-hmm. lu rafet rafet mm-hmm. yow da romb rek dem mm-hmm. adduna yi loo fi gis lu mu rafet rafet fa ñuy romb rek waaw fa ñuy romb rek dem waaw dëkk fa ñu dëkk dëkk du fii aljanna lañ dëkk waaw moo tax waxkat ba ne laysa laysa al firaaqu firaaqa al mawti wa safari la fi jinaani aw saqari na euh, tàqali ko dëgg hmm. du tàqali dee du tàqali tukki hmm. waaye tàqali dëgg hmm. mooy ñaar ñu ànd ba àdduna jeex kii dem aljana kër dem safara yooyu ànd nee na loolay waaye fii loo fi am mu jeex jarul mu lay naqadi ndax benn ci ñaari rekk la def benn moom moo jeex wala ngaa jeex wala yow nga jeex ba ko mhm. te moom yëpp mhm. ak àdduna bi ngeen ne da ngeen jeex mhm. Mm. mu bnu wa kaana bnu mm. nekkoon na bnu umara sayidna abdullahi bnu umar radiallahu anhuma yaqulu di maanaam gannaaw yonentu jàngal na ko lii hmm. mu def conclusion am nag hmm. waaw waxul ne wax na de daf ne daan na ko wax mooy lu hmm. bari na lum daan wax li wa kaana wa mooy daan na wax mooy du benn yoon bu doon wa qaala ibnu umara ñu ne benn yoon la ko wax waaye wa kaana ibnu umara mm. radiallahu anhuma yaqul mm. ibnu umar gannaaw bu mu jàngee ci lii jëm jëlee ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam daan na mm. faral di wax wax jii di dikk mm-hmm. ida amsayta soo dundee ba ngoon fala tantadir bul xaar assabaxa mm-hmm. suba mm-hmm. wa ida asbaxta soo xëyee fala tantaxir bul xaar almasa ak ngoon loolu nag mën nañ cee déggee ay déggin ida am sayta fala tantaxiri sabaax mooy li nga war a def ngoonu tey bul xaar suba ndax bés bu am na loo ca war a jëf jëfi tey bu xaar ba suba ndax bu xaaree ba suba boo ko jëfee ca bésu suba ba hmm. la nga waroon a jëf ca bésu suba ba raw la hmm. Hmm? maanaam bul yéexee jëfi tey ba ëllëg naka noon tamit wa ida asbaxta soo xëyee falaa tantadir il masa li nga war a def ci suba teel wul ne naa xaar ba ngoon defal li nga war a def yépp loolu benn maanaa la ñaareelu maanaay mooy ida amsayta fala tantadiri sabaxa mm-hmm. boo xëy wa ida asbaxta fala tantadiri lmasa mm-hmm. bu la yàlla mayee nga dund ba ngoon mm-hmm. fala tantadiri sabax bul yaakaar ne suba daan la fi fekk jëfal jëfi kuy dee léegi bul naagu ba ah, suba dana mi fekk bu la fi suba fekkee it bul hmm. yaakaar ne ngoon dana la fekk hmm. maanaam jamono bu nekk rek xaaral deen mën naa hmm. ñëw balaa jamono jooj du waxtu woo nekk rek xamal ne dee mën naa dikk balaa waxtu boobu di jeex amul kenn ci ñun ko am garantie ne minute bii ñu ne dinañ ci génn kenn nag yàlla mu ne inna allaha indahu ilmu saati wa yunazzilu alxayta wa yalamu ma fi l arxaami wa ma tadri nafsum maada taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ay ardin tamut yàlla rekk ko xam yàlla rekk ko xam amul kenn ko am garantie ne dana dund ba suba amul kenn ko am garantie ne dana dund ba ngoon mu ne kon nag ku nekk na teewlu dee fi mu ne ndax jamono mu ne mën naa dikk ñaata yoon lañ dégg ñu ne ah diw de démboo rek fii la newoon ak ñun mm-hmm. moom moom lu ko rey mm-hmm. waaw ñun de ba bu muy tëdd sax ñu ngi waxtaan mm-hmm. am ko xëy ne waa këram toggal leen ma nàngam ñu woo leen téléphone ne diw de ah dañ ko fekk fii nàngam wala dafa accidentement radeti moo tax waxkat ba ne imal li dunyaaka ka annaka taichu abadan mm-hmm. wa amal li axiratika ka mm-hmm. Mm-hmm. sa àdduna comme si da ngay dund ba faw waaye jëfalool sa laaxira ba mu mel ni suba ngay dee am na ñu foog ne xadis la waaye hmm? am la waaye du xadis waaye wax ju am njëriñ la hmm? maanaam da nga Hmm? jëfalal sa àdduna hmm. dégg nga ba mu mel ni dangay dund ba faw hmm. maanaam na nga farlu ba ku la gis yaakaar na yow de yaa ngi jëfal téeméeri at yi di ñëw waaye na nga farlu ci sa àllaaxira ba mu mel ni balaa suba nga jógee mooy bu la àdduna jiital ba nga fàtte àllaaxira bu la àdduna jiital ba nga fàtte àllaaxira mm-hmm. waaye li ngay fàttaliku ak li ngay fagarul àllaaxira yépp li la war ci mm-hmm. àdduna yi def ko mm-hmm. waaw li def ko hmm? kon ida am sayta fala tantadiri sabax ida am sayta ndem ngoon nga fala tantadiri sabax bul naagu naan damay bàyyi ba suba suba mën naa am du la fi fekk wala bu la fi fekkee la nga waroon a def démb moom na la rek boo xëyee fala tantadiril masa bul ne damay bàyyi ba xamuloo dana la fi fekk am fekkee li nga waroon a def ci suba moom faat na la rek eh, waxkat yi xikmatu yi dañuy wax ne ñett suñu la rawee hmm. mënoo leen dabaatal mukk hmm, hmm, njëkk bi mooy kàddu bu xasee génn kenn mënatu koo dugal waaw mënatu mënatu ko dabaat ñu ne waxtu su la xasee raw mënatoo koo dabaatal ñu ne confiance su xasee dem mënatu la du dikkaat mukk Mm-hmm. wa xud min sixatika mm-hmm. li maradika mm-hmm. wa xud jàppal min sixatika ci sa li maradika ngir sa feebar wa min xayaatika ak ci sa li mawtika ngir sa dee jamono ji nga xamee ne ngi lépp loo mën a def def ko balaa feebar ay dikk mm-hmm. di ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxee ci xadis ne juróom balaa juróom mm-hmm. Mm-hmm. benn ci yooyu mooy sa wér balaa feebar di ñëw bëri na loo xam ne mën nga ko waaye feebar bu dikkee mébét rek ngay mën mébét rek mébét fu mu ne soxla bu dee ñaar rek wér waaw soxla bu dee ñaar mm. dara waaye ki wéradi mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. wér rek lay bëgg ki wéradi wér rek lay bëgg soxla bu dee ñaar rek wér a xam yonent it wax na ne ñaari xéewal yu bëri dañ leen cee ndax xéewalu wér ak xéewalu waxtu te loolu la ibnu amar di baamtu fi wa min sixatika li maradika wa min xayaatika li mawtika waaw wa min xayaatika nga mm-hmm. jël ci sa dund mm-hmm. li mawtika ngir sa dee mm-hmm. ndax kiy dund mën naa jëf waaye kii dee moom jëfam yëpp dagg na ba des ñett yi yonentu sallallahu alayhi wax waaw ba des ñett yu mu wax jëf ju baax ju mu fi bàyyi ñu koy jëriñoo dégg nga wala xam-xam bu mu jàngalee nit di ko jëriñoo doom ju baax ju mu fi bàyyi di ko ñaanal yooyu rek ñooy jëfi boppam yi continuer Hmm? Mhm. gannaaw bu dee dikkee dootoo mën a jëf hmm. bu feebar dikkee dootoo mën li nga mën hmm. mu ne profiteel kon ci ñaar yi waaw yonentu nag nee na ñu bëri dañ leen ca nax waaw wér balaa borom di xam dëgg dëgg xéwalu wér rek mu feebar waaye balaa nit di xam dëgg dëgg njëriñu temps mu ñàkk ko mu ñàkkee ko soxla yu bari mbaa mu ñàkkee ko dee Mm-hmm. waaw mm-hmm. bu ñàkkee ko dee mm-hmm. su ko defee ñu bëri buñ dajeeg yàlla ne ñu ngi réccu nangam nangam commencé lay ñu ne leen awalam nu ammirkum maa yatazakkaru fihi man tazakkar xanaa dundaluñ leen woon loo xam ne ku bëggoon a waaru doy na la ci waxtu pour nga waaru wa jaakumu nadir ku pekkat bu toll ni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dikkaloon na leen kon nag fa zuuqu maa li zaalimiina min nasiir du noonu moo mm-hmm. tax nit ki mm. wéram ak dundam yëpp mm. waruwaay la ñu mm. ko ibnu taymiyata rahmatullahi alayhi wax mm-hmm. Mm-hmm. nee na yambagi lil insaani an yacla almaala ka annahu ximaarun yarkab aw ka annahu baytul xalaa yaqdi fi xaajat nee na doomu aadama hmm. war na dafa war a jàppee alalam hmm. mbaam mu war rek hmm. am fu mu ko war a yóbbu wala toilette bu muy dem rek pour faj fa aajoom maanaam alal du xaayatu alal du xaayatu du du du du objectif kiy liggéey ne dafay liggéey pour am alal déedéet dafay liggéey lam ca am mu def ko waruwaay wu muy amee ngërmande yàlla mm-hmm. muy jëriñee jaamu yàlla mm-hmm. waaw bu mm-hmm. bëri nag foog nañ ne alal xaaya la waaw buñ leen waxee wax ñu lan mooy lan mooy sa souhait léeg-léeg début d'année yi bii bëgg a ñëw ku nekk dans sama souhait mooy ma am li ma am li ma am li ma am li ba léegi ci àdduna rek la ne waaw li yàlla di wax ne am na ci ñoom ñoo xam ne bu ñoo ñaan rabbana atina fi dunya rek lañ wax Hmm? Hmm? waaw def jaamu yàlla sonn hmm. yàlla ne la waaw nag fi mu ne nii ñaanal loo ñaan ma may la amuloo loo koy ñaan lu rabbana atina fi dunya yàlla ne wa maa lahu waaye wa minhum man yaqul rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaaba naar ñun ñooñu moom am kon àdduna ak wér gi dund gi Mm-hmm. am am yi mm-hmm. yëpp mm-hmm. waruwaay la wala rek néegu uh, xalaa mooy ab douche bu nit ki dem rek fajaajoom aajoom génnaat waaw uh, kon war foofu xam nga néeg douche kenn du demu fa pour dëkk fa ki jëflanteeg noonu ci dundam jëflanteeg noonu alalam bakkan du ko mën seetaan du ko xadis yu bari njëriñ la xadis yu bëri njëriñ la beneen toon ci jàngal ne àdduna du dëkkuwaay mhm, mhm. dañ ko war a dañ ko war a jàppee kërug romb mhm, waaye waruñ ko jàppee kërug dëkkuwaay kun fi dunia ka annaka garibun aw abiru sabil nga gis yi rafetuk xamle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gi muy darbu ay lamtaal yoo xam ne soo déggee soo leen déggee rek ñu convaincre la mm-hmm. maanaam dafay indi mm-hmm. misaal yoo xam ne mm-hmm. misaal yu convaincant la sallallahu alayhi wa rek ne baal àdduna bu ci jëm ci àdduna rek nopp déedéet dafa ne la ci àdduna comme si étranger nga wala kuy transit comme si ab tumuranke nga wala kuy jéggi yoon nga boo boo waxee loolu ku am xel bu xalaatee rek dana xam ne loolu mooy dëgg mm-hmm. ndax koo fi gis ci ñun kat mm-hmm. am na ku fi nee loolu ku mu gisatut mm-hmm. ndegam baayam la dul baayam maamam la dul maamam ana maamam ana maamaati maamam ñoom ñëpp dane alakal kul waaw te ñi fi jëlee ñooñ kat duñ ñu fi bàyyi li fi jëlee ñooñ duñ ñu fi bàyyi njàngaleem yonent bi rafetaay bi ak pédagogie bi gis nga ko ci Euh, li Seydina Abdoulaye ibnu Omar wax ne hmm. axadar euh, euh, nu musdati bi man ki bayya hmm. hmm, axada rasulullahi sallallahu alayhi bi man ki bayya waaw te gimtee ñaari mbaggam yi dafay tax mu bàyyi xel ci li mu ko bëgg a wax ñu mel ni Seydina Abdoulaye ibnu Mas'ud te ñu bi ko yonent bi di jàngal aaya mooy tashahud mu ne mm-hmm. hmm? mm-hmm. yonentu sallallahu alayhi dafa jël sama dafa téye sama tenq mm-hmm. Hmm? daal di ko teg ci diggante ñaari tenxam loolu pour mu déglu euh, ñaan wala taaya gi nga xam ne moom la ko bëgg a jàng hmm? yonentu sallallahu alayhi wa ñu xamal ne ku am xel mm. fii mi ngi dund mm. di am wér mm. war naa fexe lu mu mën mu def ko mm-hmm. balaa wéradi di dikk mm-hmm. wala balaa dee di dikk mm-hmm. te bu ci nekk mën naa dikk jamono ju ne ndax feebar yi newul ci loxo jaam yi ci loxo yàlla ne dee yi newul ci loxo jaam yi ci loxo yàlla ne ñaar yoo xam ne nag benn newul ci sa loxo ki ki ne ci sa ki ki ne ci loxoom waxut la ne bés sàngam laa koy indi wala bés sàngam waaye jamono bi mu la jox rek moom nga am hmm. waaye the only time we have is now hmm. waaw léegi hmm. waaw léegi moo tax suufiyanke yi ñu ne as suufi yu nu waxti bi suufi yu mooy doomi waxtoom suufi yu mooy doomi waxtoom gis naa fu alhaji alhaji ibrahima ñas jëlaanu waxee ne moom dafa am lu ko jaaxaloon mooy seen na cheikh radiallahu anhu cheikh na tijaan yi leetaram yi du ci def date mm-hmm. leetaram yëpp du ci def taarix mm-hmm. nee na daal jaaxal ko mu di ci xaatir mm-hmm. ci xaatir ba xam euh, affaire ba mu ne ndekete Cheikh Tidiane kaana yaishu fi l aani daaimi nee na ci le moment éternel léegi gu sax léegi gu dappet nee ci la Cheikh Tidiane doon dund maanaam waxtoom lépp léegi la hmm, le moment éternel waaw kuy dund ci loolu nag amuloo taarix mm-hmm. moo tax leetaram yi soxlawul taarix mm-hmm. ndax moom ci léegi gu dappetu mm-hmm. lay dund yaa ngi koy xamee ci boo jàngee leetaram tey doo foog ne mille sept cent la ko bindoon wala mille huit cent da foog ne tey la ko bind waaw ndax ku ku not jamono sa sa waxin jamono yëpp lay wax waaw jamono yëpp lay wax dégg naa yi ci Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop mu ne naa nekk bàyyi ci tukki yi hmm. guddi gi yëpp danaaw seen ñaari néegi hôtel ya dend hmm. mu ngi dégg bàyyi benn mu ngi jàng alxuraan hmm. wala mu ngi zikkar wala mu ngi julli nee na waxtu tuuti la ko déggut gannaaw ko mu dégg ko ci activité am yooyu ak déglu information ci rajo London nee mu ne ci xelam bàyyi moom kañ lay nelaw nee na bi mu ñëwee nuyu ko ci suba gi kenn lim ko njëkk a wax ah Ibrahima xanaa sama ñàkk nelaw yi fa la jaaxal ne hmm. mu ne ko ah defe naa su ma fàttewul dafa ne ko tigi hmm. waaw mu ne te xam nga waruma ko wax tigi waaye hmm. damaa tiit ne mu ne ko man daal foog naa ne li ma bëgg a def yëpp xajul ci sama sama sama dund bi waaw doomu set boobu la war daal foog naa ne bëgg a yëpp xajul sama dund bi nga gis na kenn ci ñun bu xëyee ba ngoon mm. li muy def mm-hmm. waa li muy wax mm-hmm. waa li muy seetaan mm-hmm. waa li muy déglu waxuma la njëriñu àllaaxira waaye njëriñu àdduna sax du ko ko amal njëriñu te dañuy wax ne maama ba faat dem mm. bu weesu na mm. wal mu amalu xaybun suba kumpa la wala ka saatu lati anta fiha waxtu wi ngay dund nii rek nga am waxtu wi ngay dund nii rek waaw ah, nga mm-hmm, mm-hmm. Ah. Mm-hmm, kon nag feeg wér a ngi fi mm. dund a ngi fi mm. jëf jëf jëf jëf dafa war a bëri te jëf ji dañ ko war a ah, seet seet seetal ba xam ndax dana ñu jëriñ fii ak fañ jëm rawatina fañ jëm ñaareel lu ñuy jëriñ fañ jëm rek jëriñ ñu fi kon nag eh, Seydina Abdoulaye ibnu Omar it sharha hadis ji mm-hmm. ci waxam juróy jooju mm-hmm. mooy ku xëy ci ñun mm-hmm. bum xaar ba ngoon ku xëy ci ñun bum xaaree ngoon jëfi suba ndax bu benn du ko fi fekk wala bu ko fi fekkee it jëfi suba gi faat na rek ku fi ngoon fekk it ko xaaree suba benn suba du ko fi fekk wala bu ko fi suba fekkee it ngoon gi faat na rek hmm? jëfi ngoon gi faat na rek waaw ah, te kii kii kii balaa ngaa xam njëriñal wér hmm. wére di dikk hmm. balaa ngaa xam njëriñal waxtu hmm. nga jàpp waaw ah, di nga toog doo def dara waaye dinga toog nga bëgg a def dara fekk njabootan fi am nga liggéey boo war a def fekk fekk fekk doo ko mën fekk doo ko mën xadis ju gàtt la mm-hmm. waaye ju am solo la mm-hmm. doomu aadama ju ne mu ne war naa jàpp ci wéram mm-hmm. loo xam ne dana ko préparer ndax feebar a ngi dikk dootu ko mën te bu nit ki di def dara ci jamonoy wéram ba jamono dikk mu feebar tax mënatu ko yàlla daf koy bindal lam daan def ci wéram gépp nit it buy def dara ci jamono yu fee jamono ñëw mu féexadi mm. mu mel ni dafa tukki mm. yonentu nee na lam daan def ba mu teewee mm. yàlla fa ko koy bindal mm-hmm. yàlla koy bindal mm-hmm. te wér nag ci jamono wér nag ci bi war a gën a mën a mm-hmm. fatlu ndax foofu la gën a mënee def mbaax waaye foofu la ko mooy gën a yombe kii feebar moom daanaka moom day saali rek waaw idaa massahu charru jazuwaan waaye ida masawul xayru manuwaan ah illa al musaddiq illa al musaddiq nga gis tamit nga neelu abdullah ibnu omar radiallahu anhu wala radiallahu anhuma yaa ngi koy gis ci taathur gi nga xam ne am na ko ci mawidatu bi nga xam ne ci moom la jëlee ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu ko wàlla ñun ñëpp yaa rabbi waaw sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi amiin amiin alhamdulilah